dans quelques instants dinañ fi am beneen invité boo xamante ne mi ngi tudd Rama Atta Gueye nekk présidente association Sen Afrique moom nag li mu ñëw def si tey mooy alerter ñu par rapport ak benn événement bu ñuy euh, organiser muy the lan la comment ça se passe naka xewee fan lay xewee ak lan mooy alerte bi mu ñuy def ce sera dans quelques instants seen émission yeewu leen tout de suite dañuy commencer en information ak déclaration de patrimoine bi nga xamante ne ministre entrant yi wala ministre sortant yi dinañ ko dem defi fële ca OFNAC mais euh, liy jiitu mooy décès Amadou Toumani Touré Thioro ancien président bu euh, Mali la moom moo jiite woon euh, dëkk ba ci atuma 2002 jàpp 2012 fàttali ni moom Amadou Toumani Touré Euh, mi ngi nekkoon nag militaire ginnaaw gi la dugg ci euh, politique euh, ci ab transition boo xamante ni amoon na fi nga xamante ni moom moo di ci Mali ñu ko doon wax transition démocratique moom ci atum 2012 lañ ko fa daal di jëlee moom sax ab putsch militaire moo ko jëlee ca boppu dëkk ba moom ama Amady Amadou Toumani Touré. ñu wax ni mu ngi génn àddina dans la nuit du lundi au euh, mardi euh, fële nga xamante ni euh, fa la tëddoon feebar mu di ca Turquie moom amoon 72 ans moom Amadou Toumani Touré ñu euh, wax ni nag ginnaaw li nga xamante ni moom moo di ab opération boo xamante ni defee woon na ko ci euh, Mali euh, ginnaaw gi la ko daal di évacuer fi nga xamante ni moom moo di ca Turquie ba tey pour des raisons de santé moom mi nga xamante ni nag moom moo jiite woon Mali wax naa ko ci période 2002 jàpp 2012 pendant dix pendant dix ans. moom euh, daal na euh, faatu nag nit ki euh, démba mu mel ni nag Afrique daal di compter waat ñeneen ci ay nit yoo xamante ne Euh, bokk nañu ci analu histoire wu euh, continent bi koo xamante ni euh, ñàkkaat nañu ko moom di président Amady Toumani naa surement dina ñu am ay informations concernant obsèques yi ak yu mel noonu j'avoue que ci période bu xaw a compliqué la mm. xam ngeen ni Mali dernièrement li fa jot a xew yëpp mi ngi noonu buñ ko boolee ak période de pandémie naam taxawaay bu am solo am na ci Afrique mais nag du tax ñu baisser les bras il faut toujours jàpp ni que li nga xamante ne moom moo di jàngoroy corona coronavirus mi ngi fi ba tey mais ak lu ci mën a am dinañu am ay information euh, concernant obsèques yi ak yu mel noonu parce que nag xam ngeen ni euh, président moom c'est pas n'importe qui donc euh, décès wam itamit du du on j'ai pas envie de dire du n'importe quel décès mais quand même. xam naa ni dañ ko rendre hommage dañ ko mm-hmm, rendre hommage bu tool nii moom mi nga xamante ni moom moo génn àddina moom Amadou Toumani qu'il repose en paix comme ñu koy waxee ensuite dinañ suivre information yi pour xool <coughs> maanaam na organiser obsèques yooyu nga xamante ne mën na nekk yu amadi Amadou Toumani Touré bu ñu ñëwee fii ci Sénégal dañuy waxtaanee déclaration de patrimoine euh, bi nga xam ne ministre dugg ak yi génn yëpp dañuy dem of nag def ko ngir euh, rek euh, transparence bien sûr parce que xam nga ni bijou bu ñuy ñëw ci nguur wala ñuy génn Euh, bu ñu ñëwee dañu war a def euh, déclaration de patrimoine euh, bu ñu génnee également dañu war a def déclaration de patrimoine donc xam ngeen ni dernièrement président Macky même bien avant remaniement bi mi ngi doon soññe bu baax ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo defagul woon seen déclaration de patrimoine ngir ñu dem def ko ñu wax ni ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ministre yi dugg bees am nañu ba trois mois en tout cas képp koo xamante ne wax nga def déclaration de patrimoine mm-hmm. durée bi ñu la may booy tàmbali mooy euh, maximum trois mois pour nga def sa déclaration de patrimoine mm-hmm. ñu xam ana lan nga am bi ngay dugg ci euh, nguur gi ñu war la dénk les deniers publique mm-hmm. euh, également boo génnee war nga dem defaat itamit sa déclaration de patrimoine ñu xool entre temps ana lan moo ci yokk donc fi nga xamante ne moom moo di OFNAC aujourd'hui euh, fi mu toll nii ñi ngi fay euh, euh, xaar ku mel ni Aly Ngouille Ndiaye nga xamante ni il a ministre de l'intérieur ñu ngi fay xaar ku mel ni Aminata Touré mi nekkoon présidente conseil économique social et environnemental ñu ngi fay xaar ku mel ni Amadou Matar Cissé mi nekkoon ministre de l'énergie ñu ngi fay xaar également Amadou Ba mi nga xamante ni moom moo nekkoon le chef de la diplomatie sénégalaise nekkoon ministre bi ñu dénk wàllu affaires étrangères donc comme ni nga xamante ni noonu la ko loi 2014 17 bëggee lu jëm ci wàllu déclaration du patrimoine ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy ministre sortant yi dañu war a dem wuy ji euh, fi nga xamante ni euh, moom moo di OFNAC ñu wax ni nag li nga xamante ni moom moo di déclaration de patrimoine bi en dehors de ñii nga xamante ne ñoom la ñu lim di leen fa euh, xaar am na ay jëwriñ yu bees yoo xamante ni dugg nañ euh, ku ci mel ni euh, par exemple Yankoba Diatara ku ci mel ni ñoom Oumar Sarr donc ñoom ñëpp dañu war a dem defi li nga xamante ne moom moo di seen déclaration de patrimoine donc l'observateur bu tey mu ngi wéy di xibaar ni en tout cas ñeenti grosse pointure yi nga xamante ni ñëpp xamoon nañu seen jege ak président Macky Sall ñoom itamit rëccu parce que ñëpp dañu war a dem déclarer euh, seen patrimoine ñoom ak seen ay morom yëpp donc ñoom également ils sont attendus à l'OFNAC ngir ñu xam ndax la ñu déclaré woon ba ñuy dugg maanaam ca njëlbeen ak li nga xamante ne waa moom la ñu dek moom la ñu war de déclaré ah, ah bu yokkoo ah mais war parce que même personne lambda sa patrimoine dafay yokk boo ci boo ci bien sûr li am solo rek li am solo rek mooy. 100 francs bu yokkoo ci sa patrimoine nga mun ko justifier mais euh, nit ki moom kuy liggéey itamit yokkute ngay ngay ngay ngay ñaan et puis euh, ay nit lañu yoo xamante ni euh, ku ci nekk parce que il faut aussi ñu ñu ñu ñu moi personne et ça c'est un avis personnel j'estime que day baax ñuy ormal ak jox cër ñi nga xamante ne ñoom ñooy jiite réew mi aujourd'hui c'est pas parce que jàpp nañu kenn wala Euh, culpabiliser nañu kenn ci détournement de denier publics ak yu mel noonu que ñëpp ñoo yem. Mm-hmm. des gens son là di def politique ànd ko ak valeur ànd ko ak éthique bugguñu daraay kenn lu leen ñàkk mayul bugguñu ko et c'est important donc aujourd'hui lu mel ni par exemple sa déclaration de patrimoine bi euh, dina bokk ci li nga xamante ne non seulement day renforcer suñu ngëm-ngëm euh, ci nit ñu valeureux yooyu nga xamante ne ñoom ñoo ñuy jiite mais ñu xam également ni politique du pour euh, du may xaalis en parce que euh, bien au contraire ñii politique xam nañ ni. Ah, buñ ko tegee rek ci yoon ci politique pour am xaalis. Euh, malheureusement et pourtant ça doit pas se passer comme ça même gis koo xamante xamul sax ban liggéey la war a def wala yooyu danaan naa dem politique. mais bi ju nag noonu la bëree ñoo xamante ne xëj na nit ñi. politique a tax ñu xam leen mais bi ñuy tedd politique ñu. Mm-hmm. xam nga tey on veut même pas citer des mais am na ci ay nit yoo xam ne wóor na la ni pendant ngi liggéey moo xam ci fonction publique. moo xam ci secteur privé ak fu ñu mën a nekk ñooñu tey euh, en toute sincérité ñu dugg ci nguur pour am xaalis xaaruñu dugg ci nguur pour que leur famille vive bien wala quoi que ce soit donc aujourd'hui ñooñu tamit ñun dañuy respecter seen bonne voie seen bonne foi respecter seen éthique respecter seen ay valeurs malheureusement nag Sénégal booy def déclaration de patrimoine sax nit ñi dañu <laughs> mais mais Thioro ci déclaration de patrimoine est-ce que est-ce que tamit euh, on a la possibilité de vérifier que nit ki li mu am yëpp déclaré na ko bi muy dugg ak bi muy génn déclaré na li mu jot a am yëpp qu'est-ce que comment on peut faire pour pour être euh, sûr que ñu waxee na li mu joxe yëpp. mais est-ce que xam nga ni Bijou l'État am État am na appareil yëpp. aujourd'hui état mooy ki gën a renseigné yow sa bopp yow tey Macky Sall lu mu bëgg a xam ci yow du fanaan balaa moo balaa moo tëdd il a toutes les informations dont il a besoin donc aujourd'hui man li may wax tout le temps naan kenn mënul xeex ak nguur kenn mënul xeex ak état en fait c'est ça parce que bépp appareil bu nit di soxla pour firndeel dara bépp euh, appareil bu nit di soxla pour am ci dara bépp appareil bu nit di soxla pour vérifier dara état am na ko donc man aujourd'hui j'estime que ñi nga xamante ne mais y a les prête-noms y a le a le fait wala nga garder mais dem nañ fi ay procès yoo xamante ne gis nañ ni nangam bii kat diw mii kat prête non la ki ta na mm-hmm. donc c'est pour dire que l'état a parce que am na ay procès yoo xam ne ba tey en euh, man tey du ma dugg oui mais man du ma dugg ci loolu xamal te du ma dugg ci loolu Yacine man dama bokk ci sénégalais yi nga xamante ne dama gëm ni juste su Sénégal mu ngi dox comme ni mu waree maintenant l'œuvre humaine n'est jamais parfaite foog ay failles am oui mais aujourd'hui du ma dugg ci débat wu les gens étaient pour les gens étaient kon ñii d'accord nañ ñii d'accord ñu non man tey ku nekk liggéey boo mën a def dama koy respecté ba keroog may teg sama loxo loo xamante ne mën na tax ma démentir ko parce que mm. aujourd'hui bugguma démentir dara juste parce que j'ai envie de le démentir Yacine bu demee def dara sur le terrain bi euh, liggéey intellectuel boobu mu def dama ko koy nangul ba keroog may mën a teg lu palpable ne ah lii Yacine def faay bi nangam bi ak nangam bi ak nangam bi mais bu ñu koy wax ci lu ëpp en tout cas xam naa ni aujourd'hui état am na appareil yoo xamante ne amul lenn lu muy bëgg a vérifier wala lu muy bëgg a am lu ko leer te du ko am en tout cas man loolu sama sama gëm-gëm la c'est ma c'est ma c'est ma conviction maintenant après nag euh, débat wu ñi ñi àdduna moo demee noonu am na tamit aussi parce que si le président de la République a reconnu dans une télévision internationale que euh, CREI bi ñu fi tegoon juridiction obsolète la boo xam ne répondre tul ci li respecter les droits de l'homme loolu aussi dañuy permettre ñun en tant qu'analyste ñu nangu ne am na ay <coughs> sooxee si si si kii bi je dis pas le contraire mais dama ni pour la plupart on peut ne pas s'attarder su certains détails parce que euh, bu ñuy lim tey jii li nga xamante ne moom la justice di def bu ñu waxalee yàlla li ñu ciy gis ci lu baax moo ëpp li ñu ciy gis ci lu ci ay failles et ça c'est l'œuvre humaine elle n'est jamais parfaite ñoom ay textes lañ fi teg ñu du ci sukkandiku yow li ngay liggéey da nga fekk ñu teg ko ci ay normes ay ay ay ay kii ngay sukkandiku ci loolu tey xëj na lu bëri euh, évolué na ci environnement lu bëri évolué na ci ay sécu ci sécurité et vous essayez euh, d'évoluer en même temps que euh, le truc et et ça vous le faites Euh, ci même avec les maigres moyens du bord yi ngeen di am donc tant bien que mal yéen a ngi jéem évoluer loolu nag la ñuy nangul tey ëttu tasukatu xibaar yi loolu la ñuy nangul waa justice loolu la ñuy nangul ñeneen ak ñeneen ak ñeneen fàttali ni encore une fois l'œuvre humaine elle n'est jamais parfaite mais en gros bëri na ci vraiment ay dossiers yoo xamante ne dañu koy traité génn ci et la main pour man c'est ça le plus important merci beaucoup Thioro ci information yi ñu ngi dellu si waat ak yow dans quelques instants ci point corona ñu jàpp rek ne que ministre yi nga xam ne ñi ngi dugg ci gouvernement bi wala ñuy génn ñëpp dinañ def of nag def seen déclaration euh, de <coughs> patrimoine et on compte sur leur honnêteté pour ñu mun ñu wax carrément lan lañ jot bonne foi waaw sur <laughs> wax ñu carrément lan la ñu jot am bi ñuy dugg ak euh, bi ñuy génn lan lañ jot am naam euh, évolution sax dafay am ci bépp domaine ndax même ñun ñi nga xamante ne Euh, nekkuñu ministre nekkuñu ci gouvernement bi à chaque fois li ñuy jéem mooy développer ñu patrimoine mu gën a yokku. waaw cinquante mille de benn quinze mille de plus <laughs> donc ñoom tamit xam naa ni yokk mun na ci am mais bon on on compte sur leur bonne en tout cas pour ñu wax ñu lépp li nga xamante ne moom la ñu am merci Thioro euh, ñu ñëwaat ci yow. ci kanam waaw ci kanam tuuti fii ak ay <laughs> ci kanam lay nekk ak euh, Thioro actuellement dañuy jàll.